donc les échanges autour de la vision 2050 et après les présentations, nous allons à présent vous raconter le tout en son et en image, un film qui nous plonge dans l'agenda national de transformation Horizon 2050. Merci de suivre. Pineko Botolu. Sago. I know you very, very, very, very kindly. Baranat Butolini. Brahma Tolini. Amamuni Yaro, Wajus. une reen yi ngeen di gis ñoo ko taxawal coppite réew bi ci lii la tënku yori nu sell te jaaru yoon su du woon loolu dara dara du taxaw gis ngeen dat mooy jëmmal lépp lu ñu taxawal ngir dëkkuwaay yu mucc ayib te seen dat wi nag li koy dëgëral mooy nit ñi góor ak jigéen rawatina nag yéen ndaw ñi suñu yaakaar ci yéen du dara lu dul fexe ngeen gis seen bopp ci réew mi liggéeyal ko mooy namal réew mi gis ngeen banqaas yi ni ñu lënkanteeg garab yi mooy wane wuute gi ci koom bi fexe ñépp am xëy yombal dundin wi yembal faj wi ak dëkkuwaay yi. waa yi yi digge te mu ko sëkk na mooy tamit. coppite yi ñu indi ngir Sénégal moom boppam mu mënal boppam. ah kon jot na nag ñu wéyal ndimbal. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Voilà notre vision pour les deux jeunes acteurs du film, Oumou Salamata Nyan et Mohamed Nyan, accompagnés par l'inimitable Lamine Jai, les jeunes qui souhaitent rendre hommage à son Excellence et à son épouse. Des bouquets de fleurs offerts en guise d'hommage et de reconnaissance. Moussalamata Nyan et Mohamed Nyan, accompagnés par Lamine Diaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président de la République, avant de vous inviter à prononcer votre discours officiel, le travail que vous aviez commandé étant prêt, Monsieur le Premier ministre va vous remettre officiellement le document Sénégal Vision 2050 et nous allons inviter donc Monsieur le Premier ministre à nous rejoindre sur scène pour la remise officielle de ce document Sénégal Vision 2050. Excellences, Monsieur le Président, le document est prêt. Merci de le recevoir des mains de Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci beaucoup. Et nous allons à présent inviter son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à prononcer son discours officiel qui lance le référentiel, sa mise en œuvre. Merci donc de rester attentif au discours de son Excellence. le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, honorables élus territoriaux, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile, des organisations d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs, d'artisans, Mesdames, Messieurs les représentants des femmes et des jeunes, honorables représentants des forces vives de la nation, honorables invités en vos rangs et titres, mes chers compatriotes, je voudrais avant tout propos exprimer ma compassion et ma solidarité